man de xaw ma damaa jaxasoo xaw ma de. ki jël quatrième waaw ki jël quatrième nañ ko wax trois trois yi dafa métti de. Mm, mm, mm. waaw alxuraan ji ndeysaan xale yi tuuti di ko mokkal. Ah, di jongante président di ko xool ci télé bi suñu doom yi dem di jël raay di ñëw moo ni de nag yéen a daan fekki tey nag damay fexe ñu fekk si leen ngeen jongante ñu xool ba xam président yal na la yàlla fay. kan moo jël quatrième. quatrième ki ko jël mooy Recep Belel. Euh, dëkk Algérie am na 96 point virgule 33. Rajab Bilal jóge ko Algérie moom moo jël prix bi nga xam ne moom moo di quatrième ñu sargal ko takbir. jërëjëf macha allah muy la mu solo kon yaakaar naa ñuy juróom-benni ndongo daara yu taxaw kon ñu woo suñuy kilifa ñu woo suñuy kilifa ñu jox leen li nga xam ni ñoom ñoo di ngañaay yi ñu woo sëriñ maam Alpha Sy sang bi ci sa teranga nga ñëw joxal ñu. ndongo loolu nga xamni mom mo jël 4e euh, prime ñu wo sang bi cheikh ahmad badawi mbàkke moom itam macha allah mu ñew joxe prix jërëjëf sang bi jërëjëf si yal na yalla fay la si jërëjëf cheikh ahmad badawi bismillah sang bi mbacke bismillah moom itam mi ngi noonu ndeysaan di jox xale seen raaya xale yi mbokk yi mën leen ko fàttali ñii ñooy jàmbaaru jàmbaar yi ñooy champion yi nga xam ne seeni réew dañoo mokkal alxuraan doon fay kàngam tey ji ñu jongante ba am prix fii ci Sénégal ci wetu seen kilifa Hadji Macky Sall mën nañoo dem toog su ko defee dinañu àndaat ak kilifa gi am photo de famille bu yàgg incha allah dese nañu ñetti candidat dese nañu premier deuxième troisième Haji Moussa Niang kan moo jël troisième ki jël troisième point euh, troisième euh, prix bi mooy Maymuna Husseini Badagi dëkk Nigéria am na. Maymuna Husseini Badagi Nigéria takbir macha allah ah jigéen a jël troisième de. waaw jigéen ndayu daara yi jigéen a jël troisième waaw jigéen a jël troisième. waaw taxawal noonu incha allah <laughs> ñaara des de te affaire baa ngi yéeg premier moo des ak deuxième Haji Moussa soo waxee deuxième ñu ne kenn na fi des moo jël waxee deuxième ñu ne kenn na fi des kon moo jël premier El Haji Moussa Niang kan moo jël premier ci première édition du grand prix international Makissal, Sall pour le récital du Saint Coran Koko, Moussa Niang Gorlam la Gorlam jigéen Gorlam la takbir takbir moi j'ai premier prix nous nu tudd Moussa Niang. mi ngi tudd Ndeye Bousso. Ndeye Bousso takbir ñu takbir allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon candidat bi nga xamni première édition bu grand prix international Macky Sall pour le récital du Saint Coran mbok yi jigéen ko jël kon xana man lañ ni président mësta woon jigen firna jaagi ni jigéen a jël ci prix bi mu dogal président yalla nga du fan kon takbir allahu akbar Haji Moussa jël deuxième oh. jël deuxième Haji Moussa jël deuxième man wax wax ah public bi xam nañ ko. xam nañ ko mooy kan mooy Ibrahima soow dëkk Côte d'Ivoire am na 97. Ibrahima Sow Côte d'Ivoire takbir. allahu akbar. la ilaha illallah. ñu ngi ñu wax nag macha allah nañ ñu leen riimaleel waaw nañ ñu leen riimaleel nañ ko riimale. defe naa nañu war a toppante nag premier deuxième troisième acca ñu ñaan nag kilifa gi nga xam ni moom la yàlla mayoon xalaat moo toog fi jàkkaarloog ñun déglu suñuy soxla am ci ñun ñeewante yëg suñu cofeel ci alxuraanul karim mu ni man doomu daara la ci laa judd ci laa màgg ba tey ma li kawe ci réew mi président de la république kon bala ma leen a leen defal grand prix international monsieur le président Macky Sall nga teral sa ñi nga xam ne yow yaa leen champion des champions allahu akbar champion des champions jërëjëf waaw kooku moom champion des champions kooku mooy boobu prix numéro troisième troisième may Maimuna Maimuna from Nigeria moom moo jël troisième the third place for Maimuna from Nigeria tàccu leen baax macha allah Nigeria la jóge moom moo jël troisième jërëjëf président Macky Sall. hopp law law law law uy yamul rek ci prix président tegal na ko ci 5 millions te mooy juróomi millions. waaw juróom million mu dugg ak moom avion dem ñibbi Nigéria jërëjëf Maymuna waaye yow da ngay dugg avion ñibbi ñu xool nag grand prix bi ndax day dugg avion wala autoroute rek lay jël jërëjëf ñu dem ci prix numéro 2 prix numéro 2 acca allez-y président bëgguñu mu taxaw lu yàgg prix numéro 2 mi ngi jëm ci Ibrahima Sow de la Côte d'Ivoire moom de jógeel Côte d'Ivoire donc le prix numéro 2 est gagné par le candidat un des candidats de la Côte d'Ivoire en l'occurrence Ibrahim Sow nous le félicitons beaucoup Ibrahim Sow jërëjëf président Macky Sall tegal Nakoti. 40 millions Hop, million Hop 10 millions ay président la ilaha illallah président Yabach. <laughs> Quand kon moom day dugg avion yu balé 10 millions nous avons dit que nous dugg jaar autoroute bi moom Mboki, président de la république Macky Sall mi ngi joxe prix bi nga xam ni mi ngi tudd aw turam grand prix international Macky Sall pour le récital du Saint Coran premier prix bi mi ngi koy jox Ndey Bousso Diatara jóge ko Sénégal fii ci Touba takbir takbir tegal na ko ci ñaar fukki million vingt millions hopp law uy waaw kay président kon on premier prix bi ndeke du dugg avion day jël autoroute bi à péage bi mu liggéey moom wàcc Touba yóbbaale falal. 20 millions son excellence Il na la fay macha allah nañu président kon su ko defee yaakaar est-ce que duñ ko ñu bàyyi xale ñu wàcc bala muy dem président photo de famille bala muy dem incha allah takbir a wax li ministre day takbir président nee na képp koo xam ni da nga dugg avion ñëw wuy si ma mbaa nga dugg ci kaar yi ñëw wuy si ma bokk ci candidat yi gañe nga ma jox la prix ñëpp gis ko ñii cinq millions ñi 10 ñi 20 ñi ci des nag gisuleen lu ko jox ministre nee na kenn ku nekk boo ñibbi moo lay jox paas 2 millions président ya baax président yaa baax waaw 2 millions ñi nga xam ne ñoom ñëpp amooñu prix yi nga xam ne ñett yi ñoo ko am kenn ku nekk di nga yóbbaale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 mulku wa sitruhu ma in ilayhi hatku takbir ndeysaan waaw noonu rek la mën a deme monsieur le ministre émotion bi war nga koo mën a comprendre ndax kilifa gi toog di président de la république woolu leen teg ko seen loxo ngeen xool ci seen biir woolu équipe du ngeen ni waaw mbaa déet luñ def baax na ñu def ko mu rafet ci nii bu kenn ñëwee bëgg a wax fokk xolam moom tooy mais nag tey nag du bisu jooy bisu taxaw wax li président def la kon Hadj Babacar euh, nga ñëw eggale sa kàddu rek wala keneen eggaleel la ko bu ko defee ñu dawal film bi nga xam nag mooy ne réalisation yi nga xam ne junjoon nañ ko sànq di film buy wane jëf yu rëy yu rafet yi président def ci daara ca kenn mënta lim lépp dañ ci waree lépp lenn rek macha allah kon su ko defee bu film bi paree ñu andi ko le temps émotion bi wàcc ndeysaan takbir waaw waaw ku deful dara kenn du la neexal de jërëjëf jërëjëf jërëjëf eh, xalaat ba rafetani de monsieur le premier ministre Amadou Ba yow bi nga xam ne waa daara nee nañu président togg na mbanak yi ba mu ñor da ko yàq nga séddale joxe kudd kaay jox président ne xalam waaw waaw hopp law kaay jox ko ko macha allah kaay jox ko ko su ko defee ndeysaan ak yar bi ndeysaan monsieur le premier ministre waaw jox ko ko mu photo bii ngeen di bokk dend yàlla na ngeen ko photo wat bala moo yàgg incha allah ay <laughs> jërëjëf monsieur le premier ministre moom moo ñu joxal président cadeau bi nga xam ni communauté des daara moom moo ko gërëmee sargale ko son excellence monsieur le président de la république ndax def na ci daara loo xam ni dëgg-dëgg ñi ko jiitu nag defaguñ ko fi woon jërëjëf jërëjëf excellence monsieur le président de la république jërëjëf gañe prix bi ngir mu jox la ko day buso demal jox sa maam li nga xam ni moom mooy ndonoom di alxuraan ji nga ko yéene président yàlla na la alxuraan gunge macha allah day Bousso Diatara bi nga xam ne moom mooy lauréate bi di la champion des champion moom mooy jox cadeau ci turu champion yi président de la république takbir macha allah day Bousso jatara acca donc nous invitons la lauréate ñu ñaan ki nga xam ni moo jël raw gàddu gi ñu doon def léegi mu jàng alxuraanul karim ñu doog a déglu nag le chef de l'état son excellence le président Macky Sall. jërëjëf xaaj la man ndey bu so bismillah mu jàng alxuraanul karim bégale ko président de la république bala moo jël kàddoom bismillah ndey bu so jatara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 فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله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 sadaqallahul azim takbir champion des champions Au grand prix international Macky Sall pour le récital du Saint Coran moo doon le président pour mu Kadom kàddoom Hadji Bay Assalamu Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, je devais d'abord commencer par saluer le ministre de l'Éducation nationale, le docteur Cheikh Omar Han, maître d'œuvre de cette belle rencontre. Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires, autorités religieuses, coutumières, distingués membres des Dara, chers Ndongo Dara, chers Ndeyu Dara, je voudrais mettre de côté mon discours pour vous parler en langue nationale. kon ma ngi naan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ma nuyoo kilifa yi fi teew yëpp toogal fii këru diine yi xalif généraux yi organisation ak association islamique organisation daara yi ci fànn bu ne maa ngi am mbégte tey si di leen gërëm ci seen teewaay di teewaay bu yaatoo yaatu teewaay bu rafet ci woo bii ñu leen woo tey mu nekk ñaareelu jotaay journée nationale de daara waaye ñu toftal ko ak concours international récital du saint coran kon nak ma ngi d'abord féliciter ndaw yi nga xam nyari nañu ci juroom ñaari réew ba ci juroom ñett ñew Sénégal pour bok ci concours bi nga xam dana bok ci concours yi ñu gëna ragné ci aduna bi ci walum jangum alquran kon jërëjëf ministre de l'éducation nationale waaye jërëjëf yeen borom daara yi tagat ndaw ñi senegal naka jek daf daan dem di andi ay raaya tay nak ay rew yu bari di rew julit ñoo fi yone seeni doom ngir ñoomit ñi ñoo wut ci raaya kon ma félicité d'abord premier prix bi nga xam ne Sénégal moo ko gagné te ab soxna jël ko muy wane ni kon góor baax na jigéen baax na te booy xool sax jigéen ñaa ngi bëgg a raw góor ñi ci école bi ak ci daara yi bu loolu weesoo ma leen di xamal ni daaw lépp lañu bi fi waxoon mattali nañ ko Et une autre information bi mo yexi si ci direction des DARA amal nañ ko décret bi jël ko décret d'organisation au ministère de l'éducation nationale bu ci yàlla alors alarba bi dinañu nommer le directeur national chargé des DARA mu remplacer inspecteur des DARA. ginnaaw loolu it maa ngi leen di yëgal ni dama demoon arabi Saoudite ñu ubbi woon fa musée bi ñu jagleel sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma sàkk woon ci waa Ligue islamique mondiale ñu amal ñu musée bu mel noonu fii ci Sénégal yàlla def na liggéey bi daanaka pare na lu tuuti moo ci des xëy na weer de di qui place bi musée de civilisation noire ak grand théâtre foofu lañ ko def ma ci woo ci bés islamique musée bu ama am solo la l'islam foog naa ne ki yor machine bi moom wolof bi daf koy xaw andil jafe-jafe waaye daal kon naa jëlaat samay kayit rek su ko defee ma wuyu li nga xam ne wax ngeen ko fi ci ay doléance lépp nag bind naa ko ci sama téléphone bi waaye di leen xamal ni bés bii tey li taxoon ñu gën koo amal mooy dañu bëgg at mu nekk njiitu réew mi fi nekk am jotaay ak daara yi xam nga boo xamee ne at mu ne am nga rendez-vous da nga góorgóorlu ba balaa ngay toogaat la nga digee woon boo ñëwee boo deful lépp nga def ci li gën a bare loolu mooy solow di am bés ñu tuddee ko journée nationale lu ama am solo la kon bés la boo xam ne dina tax waxtaan bi diggante daara yi ak état bi ñu mën ko amal ñu déglu leen déglu na fukki coordonnateurs régionaux ak ñeent déglu association des écoles coraniques ak association islamique yi dégg naa bu baax a baax revendication yi wala boog doléance yi xaw na ñoo bare waaye ñun loolu lañu fi nekkee nekk ci di faj soxla askan wi ak bëgg-bëggu askan wi lii moo tax ci wàllu subvention juróom benn milliards yi ma leen waxoon soo leen gisee d'ailleurs ñu randal tuuti bés bi andi ko tey ji 16 dama ne woon ministre des finances balaa may dem bëgg naa xaalis boobu ñu génne ko kon tey ji yàlla def na xaalis boobu mat na muy juróom-benn milliard bu ñu jagleel daara yi dindi si benn milliard jënde ko ceeb mu war a toll si ñaari junni ak juróomi téeméer ba si ñaari junni ak juróom-ñaar téeméeri tonnes muy deux mille cinq cent à deux tonnes yoo xam ne lépp ñu ngi koy jagleel daara yi li ci des itam cinq milliards yi des ñu jox ko daara yi yi gën a néew daañu am juróom fukki junni ba ci ay millions mu ngi dépendre si ni daara bi toll ak ni ndongo yu toll kon loolu nekk na natt boo xam ne at mu ne wax naa na ko gouvernement bi di def mu toll si 20 témèr boy jël ñaar fukki yi la jox école yépp ñu jagleel ko daara yi te gën nga néw mu toll ci juróom-benn milliard ça di ko bu budget bi yokk ñu yokk juróom-benn milliard yi loolu nag maa ngi ci woo kii di Amadou Ba premier ministre ginnaaw moom la ñu ngemb fas yéene mu gagné bëgg ngeen jàppale ko ci yéene boobu mu fexe ba non seulement bala weer wi dee juróomi milliards yooyu ñu dugal ko ci daara yi ak ceeb bi waaye surtout niñ ko waxee mu fexe ba sóor ay mbana yu bees pour que deux mille vingt quatre deux mille vingt cinq deux mille jëm yàlla xam at mu ne mbana daara yi di bañ a manqué at mu ne mbana mi gën a neex di gën a bëri parce que daara yi yelloo nañu ko daara yi yelloo nañ ko ndax lu ama am solo la ci li ñuy tuddee cohésion nationale maanaam bu yàgg ba bi ñu tubaab bi moomee daf ñu jàngal kàllaamam jàngal ñu ni muy gisee àdduna loolu nag bu ñu demee ba gis tey taxawaay yi ñu war a am ñu ne tam ci suñu diine kon war nañu gën a fulaal suñu diine moo waral lii may def dooleel daara yi jàppale daara yi jàppale ñiy jàng ci daara yi di leen jël itam ci liggéey bi nga xam ne état dina koy joxe loolu wute na ak mbirum privé ak public dama jàpp ne tey kenn ku ne bëgg nga liggéey ci état. kon nag bu ñu demee ba sëriñu daara war a mën a nekk fonctionnaire u état kon loolu ngëneel la yokkute la itam loolu nag moo tax dinañu améliorer condition daara yi waaye bu ñu ko améliorer yokku ko war nañu fexe itam lépp li nga xam ne luy andi jafe-jafe la ci daara yi ji dindi loolu rawatina yelwaan gu metti gi ci mbedd yi surtout mbedd ndakaaru ak mbedd ville dëkk yi nga xam ne ay dëkku taax lañu loolu war nañ ci taxaw bu baax a baax moo waral ma ne nañu joxe dund gi nañu joxe appui financier nañu joxe itam dëkkuwaay nañu jàppale sëriñu daara yi ak borom daara yi ak ndeyu daara yi ba nga xam ni daañu am dëgg-dëgg taxawaay kon bu loolu weesoo ci wàllu ay réalisation danaa ci wax tuuti rek loo xam ne joxe naa ndigal ci gouvernement bi ngir ñu mën a taxaw daara yi taxaw ndongo daara yi juróom-ñaar fukki daara ak juróom-ñett muy ay daara moderne ci biir région yi defar nañu ko tabaxat muy réhabilitation yenen juroom ñen fukki dara ak juroom ñen yo xamne tay ji ñu ngi dox ñu ngi itam yok juroom ben témèr ak ñett ci ay dara, yo xamne dugal nañ ci dara préscolaire pour ñu yok niveau bi manam yok niveau bi nga xamanteni ni yi war nañ ko am 33 euh, 880 bénéficiaires direct muy fanweeri junni ak ñett ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett yoo xam ni ay ndaw lañu di ay ndongo war nañu am bénéfice ci loolu loolu nag buñ koy wax dañu bëgg a yokk njàng mi ci daare yi ministère de l'éducation nationale moom moo yor wàll woowu mooy piloté motax nak duma du nangu si ñu ne nañu def rek ministère bu ñu jagleel daara yi déedéet nañu def dox pas à pas benn benn bu ñu ubbi waxtaan wi rek ngeen commencé nak laaj ministère des daara toog leen ci direction bi d'abord ba ñu xam dox bi fu mu jëm parce que éducation nationale nag benn la war doon ci réew mi te éducation nationale moo yor l'école yi moo yor daara yi moo yor sax chrétien euh, école de euh, bi kon yor war ko en tant que partenaire Lolo, amna inspection des daara bi nga direction nationale des daara du Sénégal que dafa am solo parce que la direction bi dafay am programme bu boo xam ni wax renforcement de capacité des acteurs professionnels maanaam même ñi jàngale ci daara yi di sëriñu daara war nañu leen tàggat parce que kuy tàggat ay xale yu ndaw dañ la war a jox ay outils pédagogiques xale dafa am nuñ koy jàngalee donc renforcer seen capacité moo tax it ñu ne état bi war na def ay recrutement ñu tàmbalee

entre état bi ak daara yi d' accord pour ñu mën signer monsieur le ministre un accord cadre pour la promotion des Dara. accord boo xam ne mën ko teg ci kaw projet de loi portant statut des Dara. loolu dafa am solo parce que am statut lu am am solo la mais dañ koy waxtaanee suñ ko waxtaanee rek jàppale bi ak ndimbali dana gën a yomb bu loolu weesoo daara yi war nañu gën a def effort ci bés bii surtout bés yi di ñëw moo tax am na document bu ministère bi defar ñu tuddee ko document d'orientation pour la modernisation des daara nan lañuy ñuy defaree daara yi ñu gën a méngoog jamono document boobu dana dimbale ci li ñuy wax offre éducative ban programme mu jàngale ak naka lañuy ñuy gunge borom daare yi naka la ñuy gunde gunge ndaw ñi dinaa ci ñëwaat léegi ci li nga xam ne waqf bi def na ko CMU li mu def 3FPT li mu def ak DER li nga xam ne war nañ ko def ci daara yi pour que daara yi mën a jëm kanam xam ngeen ni jël naa décret 2023 225 le 18 janvier bi ñu génn la journée nationale des Dara... moo ñu waral jotaay bi tey amaat Benen décret bu ma jël ci grand prix international du récital du Saint Coran mooy li ñu am tey ma ci ministère bi ak acteurs yi ko def ak jury may nuyu di gërëm imam Mahmoud Hassan Bousso di borom xam-xam boo xam ni c'est une fierté tiitaru Sénégal la ci l'islam moom ak ñi mu bokkal liggéey bi ci jury bi ñu def liggéey bu rafet a jaaraama no feewi e gollema ma e eɓe gonduɗa e oɗo e liggéey war nañu def recrutement juróom benn téeméer ak fanweer ci ay jàngalekatu daara ci biir fonction publique fii ak at mi jeex ak lu toll si deux tiers maanaam boo leen tànnee muy ñett pàcc ñaar ñi déjà jot nañu ay salaire kon ñu ngi mottali loolu dootuma ñëw si li ñu wax ci subvention annuelle bu six milliards dont un milliard pour le riz loolu aussi lu ñu def ba pare la mu des mu yegg si si yéen jël nañu mesure yëpp yi nga xam ni moom lañu ñu war a jël ngir jàppale daara yi ci wàllu woowu. loolu nag encore une fois damay wax dañ koy def ngir wàññi wàññi taalibe yi taxawaalu ci mbedd mi di yalwaan foo ñu jàppalante si ñu dimbalante loolu. gouvernement bi taxawal na haute autorité du waqf haute autorité bobu amna projet bu ñu taxawal ñu tuddé ko waqf CMU daara waqf bi ak semi pour jox xalé yi couverture maladie ci dara yi warna financer déjà 124 millions ak le top pour ñu enrôler 100000 ndongo dara am la ba pare. ensuite fukki junni sëriñu daara ak seeni njaboot dañu ne nag un conjoint ak deux dama jàpp ne souvent sëriñu daara yi xëy na danañ ëpp deux deux enfants kon loolu tam war nañu ko ameliore mu méngoo ak suñu ni ñuy dundee ay deux enfants moom loolu ci tubaab yi la am ginnaaw loolu tam juróom-ñaar téeméeru ndeyu daara bokk nañu ci programme boobu

état haute autorité du wax partenaire privé partenaire technique et financier agmessen mécène ñëpp boole pour que képp kuy ndongo daara foo mënti nekk ci Sénégal nga am couverture maladie boo feebaree ñu mën la faj sa sëriñu dara bu feebaree ñu mën ko faj ak njabootam ak ndeyu dara yi donc lolu ma ngi wax gouvernement bi tam ñu fexé bobu ngir mbirum wér-gu-yaram ñu mën ko régle ci daara yi maa ngi ginnaaw loolu itam xamal ni programme boobu ak projet boobu dañu bëgg ñu pérenniser ko maanaam ñu lawal ko pour mu law nag lii ñu def ndakaaru ci waxtu bi nga xam ne jëloon naa décret deux mille vingt deux ngir indi ay koppar ñu les ressources du public ñu dugal ci joxe terrain def ci alal ba waqf boobu tax na danañu tabax immeuble bu am solo R plus 15 lépp lu mu location ñu téye ko daara yi yi nga xam ni mooy daara pamod pour que région itam ñu xool wala fii ci ndakaaru nan la ñuy gën a yaatalee projet waqf yooyu pour que daara yi ginnaaw li état bi joxe ñu am at mu ne ay ressources yuy permettre ñu mën leen jàppale. loolu mooy tax nga am garantie ci subvention parce que jëf tam dafa war a law warul nekk lu ñuy def rek benn yoon wala ñaari yoon mu taxaw waaye dañ ko war a lawal ba faw pour que daara yi nekk cadre bu baax a baax ginnaaw loolu nag mbokk yi am na lu bari loo leen fi wax ci wàllu sëriñu daara yi amoon ay tolof tolof yaakaar na am na luñ ci defoon ci li nga xam ne méngoo na ak yoon mooy ñi nga xam ne amoon nañ jugement ñu gracier leen waaye ñu amul jugement de mbir mi garaawuloon trop ñu mën leen defal liberté provisoire loolu dinañ continuer di ko saytu waaye nit ñi dañ war a xam ne nag daara itam ci réew mi lañu bokk te dañuy wuyu ci yoon du benn yoon suñu coobare si di am jafe-jafe ci ay sëriñu daara lekkool yi léeg-léeg ñu am ay jàngalekat yoo xam ne dañu am problème dem tribunal layo ji bu fekke def nañu naka nul nonu kon mbir momu lima lan ci meuna wax rek moy dinañ ci taxaw sun kem katan, waye nak duma leen wax fi kat képp kuy sëriñu dara a dara du la jot bu fekke def nga lo xamne ne du yoon waye lepp luñu wara def ngir woyfal ak yombalal mbiri dinañ ko def yakarna ne deggo nañu ci kaddu kon nak jam. jàmm na ñooy ma bëggoon ñëw ci walu formation professionnelle wax nañ ko parce que lu am am solo la jàngal nit ki métier 3FPT déjà financé na 622 millions ak lu topp muy juróom-benn téeméeri millions ak ñaar fukk ak lu topp mon financé ci junniy nit ak juróom-ñaar téeméer ak fanwer ak ñaar ci diggante 2021 et ak 2023 ci ñaari at loolu nag daf leen former ci couture surtout jigéen ñi ci wàllu pâtisserie wàllu bâtiment électricité plomberie installation solaire métier yu bare bare daal fibre optique infographie horticulture loolu yëpp ay métier la yoo xam ni 3FPT mu ngi koy former ak maraîchage te war nañu gën a yaatal formation yooyu maa ngi wax directrice 3FPT mu gën a yaatal loxoom ci wàllu woowu te moom bu formé dina leen jox ay diplôme muy ay certificat professionnel de spécialisation yoo xam ne état bi reconnaître na ko te boo ko amee mën nañ la embaucher service ou état wala ci privé bëgg nañu tam daara yi ñi ci nekk a mën a demal autonomisation loolu vous leen former ba délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes ñoom ñu le relais financer les sortants pour jox leen autonomie bëgg na itam ñu xool entre la DER et le ministère de la femme subvention boo xam ne ay waañu daara la ñu wutal leen matériel ak ustensile de cuisine ak lépp loo xam ne dana dimbale ndeyu daara yi pour que seen liggéey mën a yemb kon loolu bokk na ci programme yi ñu arrêté DER ak 3FPT maa ngi leen di sas ñu yokk seen taxawaay ñu ngi koy def ne ci wàllu woowu am na déjà ay programme yu ñu def ci Louga ci Ndakaaru si Thiès léegi nag war nañ ko yaatal ci yeneen région yi fukki région yi ak ñeent dina loolu mbokk yi ni ngeen ko xamee Sénégal dafa jël engagement ci di def politique de diversification de l'offre éducative lolo moi dañu bëgg éducation religieuse apprentissage ñu boole ko dëgg-dëgg ak al Quran, ci ni former suñuy doom même bu ñu nekkee ci école française moo waral programme bi ma waxoon docteur Abdoulaye Lam di fateli fàttali léegi loolu bëgg naa itam ci at mu njëkk bi nga xam grand prix international de récital du Saint Coran ñu ubbil ko nationalité yu bëri réew yu bëri ci biir sous-région bi ak lu dul sous-région bi ci biir umma bi ñu mun di ko pérenniser loolu tam bëgg premier ministre nga bàyyi ci sa xel wala yàlla jàppale ba nga am li ngay wut te ñoom ñu war la ci jàppale nag bu loolu weesoo maa ngi pour terminer gërëm xale yi nga xam ne ñoom ñooy les lauréats ndax concours bi concours bu jafe la ñuy wane kon l'islam bi ñu jàngale fii l'islam bu am solo la ñu gërëm leen gërëm seeni jàngalekat gërëm seeni wayjur waaye gërëm encore une fois jury bi parce que concours de qualité jury daf ci solo jury de renommée internationale nous avons xam ne ñoo compétition bi fii tey maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm di Sénégal mais une mention particulière au ministre de l'éducation nationale Cheikh Omar Anne jërëjëf de ngaalaama kontaan nañ ci sa jëf de sa Ligue maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. jërëjëf euh, président de la république. kon moo jëloon noonu kàddoom. vient donc euh, de clôturer